Sylvestine Mendy maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Sylvestine Mendy nga nekk coordonnatrice euh, bu mouvement Africa First déjà may ñëwaat euh, di la laaj lan mooy sens mouvement bi lan ngeen di xeex exactement Africa First. waa Ndeye Comba euh, laaj boobu fàttali ne Africa mouvement la ba nga xamante ne day jëmmal nit ku ñuul day taxawal deru nit ku ñuul. day xeex euh, pour ñu jox gëdd ak ak yelleefu deru nit ku ñuul te nekk ci monde bi donc Africa First loolu moo ko tax a jóg te ci contexte bi mu juddoo sax mooy ba nga xamante ne oom nañ suñu ndaw africain bu tuddoon George Floyd fële ci États-Unis hmm. ñu booboon booboon ko ci ay conditions yoo xam ne dañoo yaakaar yaakaar ne racisme rek moo ko laloon parce que ay policiers yu yu yu weex ñoo ñoo ko jëloon teg ko tànk mu fatt di yuuxu di yuuxu ba ñoon la ñàkkee bakkanam donc ci loolu Africa suuf ne ñun kat ay ndaw Afrique lañ mënuñu di seetaan lii di raam di di gën di dem parce que am nañ ci wàllu ñun aussi ñu yuuxu fu fu mu fu mu fu mu war a egg mu egg fa ñu wax ne africain kat war nañ ko jox gëdd war nañ ko delloo ak ak yellee comme fépp mu mënti nekk ci biir àdduna fi loolu moo taxoon jóg Africa First boobu ba léegi mu def ay jéego ci réew mi ak bitim réew mhm. fépp fa nga xamante nit ku ñuul gis nañ ne ñu ngi koy néewal doole ñu ngi koy toroxal ñu ngi koy ñàkkal fayda ñu taxawu ko dox ci wax ci ba luñ ci am hmm. euh, mais dañu gis ni souvent Africa fës dafay lëngoo ak mouvement FRAPP bu Guy Marius Sagna est-ce que mën nga ñu expliquer lëngoo gi lan moo ko waral exactement waa Africa First li ko tax di longool ak euh, mouvement FRAPP di bu Guy Marius comme ni ma la ko waxee léegi rek FRAPP comme Africa First ay mouvement lañ yi nga xamante ne mouvement panafricain lañ maanaam mouvement yi nga xamante ne dañuy xeexal nit ku ñuul dañuy défendre nit ku ñuul ci bépp tolof tolof bu mënti ne biir réew ak biti réew donc euh, doon aussi ay anti impérialiste nga xam lañuy xeex ngir nooteel bi ñu étranger yi di noot ñu ñun ñu weex ñi ci di noot ci biir réew mi ci suñu alal ci lépp lu ñu moom ci koom-koom ci gàncax mu mun a deñ ci réew mi donc loolu mooy tax à chaque fois boo leen gisee événement yu mel noonu xew ngeen gis Africa First boo leen dégg FRAPP ngeen dégg fa Africa First ak ñu leen di ci ci euh, laaj euh, tey jii ban euh, ban xalaat nga am ci arrestation yu bari jëmale ko ci activistes yi ñi ñuy wooye activiste ak tamit ay opposants parce que ñu bari ci patriotes yi actuellement ñu ngi leen tëj ci kaso bi yow wala mouvement Africa First naka la gisee arrestation yi. wa ni ñu gisee arrestation yi moom jàpp nañ ne injustice rek moom moo ko lal jàpp nañ ne xoqatal moo ko lal néewal doole moom moo ko lal parce que bu ñu demee ba ci réew ma nga xamante ne nee nañ réew mu réew mi yoon la kenn amatul sañ-sañ sax wax sa xalaat donc réew moomu war nañ ko xoolaat donc doxinul réew moom bu ñu naan réew démocratie la war nañ ko xoolaat donc mu doon lu ñaaw la nga xamante dañoo yaakaaroon ne si ab fi monde bi toll euh, on est au vingt et unième siècle donc euh, tolluwaayu àdduna si laaj na ku ci nekk bu amee lu mu war a wax mu wax ko euh, ci njekk ak teranga te kaso du ko ci fekk patriotes yi nag seetlu lañ ne ñoom ñoo ñoo gën a sonn ci loolu parce que ay opposant lañ te jaaxal nañu trop ndaxte mënuñoo wax politique wax parti au pouvoir bu amul opposition donc loolu bañ wujje la yaakaar naa ne ci néegu sëy moom nit kuy bañ wujj dañ koy jàppee nit ku soxor nit nit ku bon xool donc nguur gi tey loolu lañ leen di jàppee li tax ñuy ñuy persécuté maanaam ci bundu xataal yu opposition yi ak activiste yi euh, loolu dañ koy jàppee la nga xamante ne injustice teku ku xam activiste yi xam ne loo leen loo leen bañ bañ bañ bañ lu ñu soof soof soof xam ne euh, defuñu leen euh, ngir am luñ ci seet mais dañoo nekk ñoo xam ne yàlla moo moo leen teg sas boobu di taxawal askan wi mission la ba nga xamante ne ni imam bi di jiitee ni président bi di jiitee ni ministre bi di jiitee ak ñeneen ak ñeneen ñeneen ñoom tamit mission la ci ñoom ñu war a taxawal seen askan yor seen baat lu ñu mënta wax ñoom ñu ñu waxal leen ko yaakaar naa activité yi ñoom tamit am nañ ci euh, coono trop am nañ ci coono depuis président Macky Sall euh, amee yaakaar ne war na mën a def troisième mandat ba léegi activiste amatul jàmm opposant amatul jàmm yaakaar ne rafetul ci réew ma nga xamante dañoo ne am na démocratie. Euh, Sylvie ñu euh, gis affaire u Hadjibou Soumaré euh, mu interpellé njiitu réew mi doon ko laaj ne dégg na wala am na ay information que ni dafa yëkkati ay milliards jox ko opposant bi ca France di Marine Le Pen def ko ci ab badaaxal mbir mi na gis nga coow li mu jur ba fi ñu nii loxo yoon am na si loxo ñu bëri nag jàpp ni laaj kese yoon am ci loxo euh, bañ ci téye Hadjibou Soumaré liberté d'expression dafa sooxe Sénégal est-ce que yow da ngay dëggal loolu waaw wala déet. waa ci euh, ci problème boobu tamit dañuy wax rek ne comme que ñoom ñoo faral di naan yoon am na ci réew mi yoon day def def liggéeyam donc Hadjibou Soumaré ku ko xam xam ne euh, nit la ka nga xamante ne daf ko mës di liggéeyal réewam dafa mës di xeexal réewam. donc doon fi responsable boo xam ne kenn naatableetu ko donc bu jógee di di wax ay kàddu ya nga xamante ni jëmale ko ci président de la république peut-être am na fu teg mag la di waxantu donc ci loolu mënuma cee xuus lu bëri bëri parce que ba léegi mu ngi ci ci loxoy yoon ñu ngi koy laajte donc war na rendre compte su fekkee ne day laajte rek euh, tamit jarul ñu koy jàpp su fekkee aussi daa wax ne loolu am na am na ci ay ay firndeel yu leer lu mu ko teg de toute façon nañu xaar rek euh, yoon def liggéeyam Euh, beneen euh, laaj est-ce que di nga euh, mouvement Africa First dina wuy ji ci méga meeting bu Yewwi Askan Wi parce que dinañ ko amal ci 14 mars bile avec ou sans autorisation pour libération wu détenus politiques yi en tant que organisation boo xamante ni da ngeen di xeex pour liberté d'expression démocratie ainsi de suite est-ce que di ngeen wuyu ji ci meeting bi waaw wala déet. waa ci ci meeting boobu Ndeye. Mm-hmm. yaakaar naa ne Africa First bi ma duggee ci xeexu libération des détenus politiques yooyu le dafa bokkoon ci benn kuréel bu ñëw woowee Polydep Polydep nekkoon collectif pour la libération des détenus politiques di euh, nekkoon kuréel boo xam ne ay mouvement yu bëri ñëw ko fekk comme euh, FRAPP Y'en a SNP donc ak Africa First donc mouvement yooyu yëpp ñoo tënku woon ci Polydep boobu ne ñun ñooy xeexal bépp litanie boo xamante ne jàpp nañ ko te jàpp yaakaar ne jàpp la jàpp laluwul ci yoon donc pour dem ci meeting boobule ñun aussi dañuy tënkuwaat rek ci li liy jógee ca ca ca groupe boobu ne ci biir Polydef su fekkee ne gis nañ ne dañ dañ ca war a dem dañ cay dem mais Africa First rek en tant que Africa First du dem ca meeting boobu ne day am lu muy nirool te ñun mm-hmm. bu ñu tënku ci ci ci ci rek ci kàddu la tënku mm-hmm. euh, tamit naka nga gisee wu famille wu victime yi événement mars yi xam nga fukki nit ñeent seen bakkan rotoon na ci famille wu mm-hmm. victime yi ba léegi euh, di laaj justice amul ñu bëgg koo yóbbu ci organisation des nations unies euh, naka nga gisee lu ni mel Sylvestine waaw lu jëm ci ndaw yooyu ñu ñu boomoon moom wax yàlla jàpp nañ ni jot na seeni famille xam fan lañ féete parce que ndaw lu mu tuut nit la donc euh, amoon na avenir ci réewam donc ñu boom leen noonu ci situation ya nga xamante ni manifestation la woon ci ay ay ay manifestation la woon yaakaar naa manifestation kujje gi ñoo ko seqoon ak parti au pouvoir donc am na fa nga xamante ne moom moo def li li tax ba ñu ñu boom ndaw yooyu yooyu leen donc boom boobu fi mu jógee nañ ko saytu na yoon def def liggéeyam ba ñu mën a xam ku famille yooyu di féete parce que seen i doom doom dafa sax ci xol te ci ay famille lañ jóge am nañ la ñu xam seen doom yi yan ak ana anam lañ leen boomee ak la justice di def ba ñoom ñu mën a nekk ci jàmm salaam mhm. am actuellement loo xam ni euh, ci actualité bi la muy la xew ca Tunisie gannaaw njiitu réew ma bu mu yëkkatee ay kàddu jëmale ko ci der bu ñuul wala sax euh, nit yu ñuul yi nga xam ne ñu ngi foofu ca Tunisie coow li bari Euh, lan mooy euh, position wu Africa fës par rapport ak li nga xam ni moo am ca Tunisie. ah waaw loolu moom euh, dañ koy ñaawlu Africa First comme que day day organisation boo xam ne day xeex àq ak yelleefu nit ku ñuul Africa First mouvement la boo xam ne day xeexal deru nit ku ñuul day xeex àq ak yelleefu doomu aadama mm-hmm. yaakaar nañu discours boobu président Tunisie tenir dafa tax ba askanu Tunisie yaakaar ne bu ñu amul liggéey wala seen koom-koom buy soox wala seen seen seen dëkk bu bu nekkee ci ay ay tolof tolof parce que étranger yi nekk foofu la di di en majeure partie ay africain nit ku ñu nit ñu ñu nekk foofu ñoom ñoo tax buñ ñàkkee liggéey ñoom la ñoom ñoo tax buñ buñ amul xaalis ñoom la loolu tax nag euh, ba ñun suñu ndaw yi nekk foofu ñameetuñu sax génn parce que buñ génnee ñuy teg seen i der lu ñaaw di leen di saaga di leen di xoqatal ba ñenn ñi ñu jàngi ñenn ñi bu ñu waree dem fenn sax il faut ñu signaler euh, ci ay groupe whatsapp ne man diw maa ngi génne dem ci heurtel bu si waatee tamit il faut mu signaler wu ne ñibbisi na sinon rek la ñuy yaakaar ne mën nañ koo jàpp ci yoon muy góor muy jigéen kenn ci ñoom mënatul génn donc ci loolu ñuy jàpp ne lu ñaaw la lu ñaaw la parce que bu àdduna tollee ba fii nit di ter teg ci mm, mm, moromam nit li ni mel Mm-hmm. ay ay ay kàddu yu rafet yaakaar ne ñaaw na trop. Mm. déjà ñu laajaat la kon état wu Sénégal moom lan la war a def pour yow euh, par rapport ak situation bi am Tunisie par rapport ak sénégalais yi nga xam ne ñu ngi foofu Tunisie daal di tumuranke. waa ci ci loolu li ñu doon séntu mooy suñu état bu Sénégal jël ay responsabilités dalal xel d'abord ndaw ya nga xamante ne ñu ngi foofu ci ci nekk ci ay guddi yu yu bërsëtagul mu dalal seen xel wan leen ñun yëg nañ seen bëbët yëg nañ seen seen métit donc ñu ngi compatir li ngeen yëg ñun moom la ñuy yëg donc beneen bi mooy ambassade bi nekk foofu ndaw yi woo nañ ko di ci ko wax seen problème ndax yëg nañ ko ñoom ñëpp ñoo nekk ko amul lu mu leen wax lu dul yéen ci ci li ngeen mën jàppalante leen seen biir euh, na ku nekk di nemmeeku moromam en attendant ba keroog ñuy am ay pexe te xam nañ ne ci jamono ji Guinée dem na jëli ay ndawam Côte d'Ivoire dem na jëli ay ndawam ak ñeneen yeneen réewu Afrique yi nga xamante ne amuñu sax doole te Sénégal ku ko xam xam ne bu dégg bëccëg li ñuy ndamoo mooy bokk nañ ci dëkk yu yu Afrique yi nga xamante ne ñoo ëpp doole ci wàllum sécurité ñoo ëpp doole ci wàllum koom-koom donc ana loolu tey gisuñu ko mu feeñ parce que bañ newee problème am na foofu ñu njëkk a dem jëli seeni ndaw mooy ña ñu doon yaakaar ne ñun ñoo leen ëpp doole donc muy doon la xamante ne ñun yaakaaroon nañ bu tollee fii suñuy suñu président mooy njëkk a dem jëlee ay ndawam foofu non seulement en tant que président euh, de l'Union africaine mais en tant que suñu njiitu réew ba nga xamante ne problème boobu métti ñu trop ñun ñu nekkoon ay ndaw ya nga xamante ne dañoo doon rendre demander ay compte rek mm. mais malheureusement samedi ba le passé bañ gisee ne moom président waxu ci yooyu ci yàbbiwu ci ñu ne ñun mouvement yi kat yi ma lim muy Africa First FRAPP ak Sénégal notre priorité ñu demoon pour déposer une lettre pour laaj leen lan moo tax ñuy def loolu ñu ñi ñun ñi dañ ñoo jàppoon ñu yendu central suba ba ba ba fanaan fa ba dimanche ci six heures du matin bii passé lañ ñu libéré ñu ne waat ñun tamit duñ toogaat parce que ba léegi gisuñu lu ñu doy demuñu jëliñu leen te defuñu lenn loo xam ne dal na suñu xel ñun ak luñ ñu mën ci def lu ñu toog parce que ñooñu ñun la ñuy déglu ñun la ñuy xaar soxla nañ ñu jàppale leen ñu demaat encore démb déposé lettre boobu leen ci boobu lañ déposé lettre bi dem nañ ñëw nañ ci jàmm ak salaam kàndiwuñ fa xeer yuuxuwuñ fa saagawuñ fa def nañ ko ci jàmm ak salaam te yaakaar nañ ne loolu lañu mën a def pour jàppale ñooñu nekk foofu ci ay tolof tolof Mmh. Dernière question Sylvestine Mendy c'est par rapport ak euh, éventuelle troisième candidature bu Macky Sall pour euh, élection présidentielle bu 2024 Africa First def ci ànd waaw wala déet bu fekkente ni samp na na ndëm waa euh, Africa First moom euh, du ànd ci la nga xamante ne day naxasal euh, démocratie ak ak àq ak yelleef donc comme ni mu ko waxee ci ay lignam rek mooy mouvement la ba nga xamante ne fépp fu askanam soxla daf koy taxawal ba mu mot ak lu mu laaj mu def ko ci ci loolu tamit dañuy fàttali ku nekk question de troisième mandat moom c'est la première fois muy am fii xanaa 2011 bi Abdoulaye Wade ne woon ne day def troisième manda moom Macky Sall mi koy yootu tey moom moo demoon taxaw ne lu mu ko jaral moom Abdoulaye Wade moom Macky Sall dina ko ko jaral dina ko ko jaral sax mu gàddu mer gàddu dem fanaan ca buntu assemblée donc moom Macky Sall ñun dañ koy waxaat ne lépp lu mu ko jaral ñun aussi société civile ba nga xamante ne askan wi rek moo ko tax a jóg dañuy defaan askan wi bu naree dugg ci ci dañ koy taxawal dañ koy newaat aussi du def troisième candidature parce que suñu constitution moo moo ko tënk amul droit def troisième mandat te moom aussi waxoon na ko di ko répété waat di ko répété waat vaar yaa ngi fi ne moom buñ ko falaatee deux mille dix neuf du defaat beneen mandat donc góor ca wax ja na respecté ay waxam ba bu def troisième mandat parce que euh, réew mi bu nekkee ci jàmm ci moom la dépendre mais réew mi bu duggee ci guute ci jamono ji ñu toll nii ci moom aussi lay dépendre en tant que président de jël ay responsabilités xam ne réew mi instant bi ci ay loxom la nekk mu bañ a wax waxu troisième mandat. Sylvestine Mendy Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal ci sa disponibilité. Mhm, may fàttali ni yow yaay coordonnatrice euh, bu mouvement Africa First. Mhm, exactement. Mhm, exactement.